muy maqaama bu ñeen fukkeel ak mu ngi ko askan ci Ramla hmm. lii baaxab Abu Seydin tafu xudaa yi di nax rek hmm. jàmbul loolu la defaat hmm. kalaam ne ante la ci digganteem ak soxnaam soxna di wax ne silatu siwaa ji war a am ci digganteem ak góor gi góor gi dafa bañ te nag góor gi amul dara su boobaa kon moom dafay nekk du fi nekkee dara daal moom mm. lu aju rek la mm. la la da wane góor gi amul dara lu mu ko jox mm. te ne silaatu si waa ji war a am benn saw ko cee jox gannaaw léegi kon moom ànd ak góor gi dara nekkatu ji loolu nag lu ñu war a rek la la fekk yëpp ay plan yi naxe rek la la mu ne qaal mu ne kuntu nekkoon naa hmm. axattu di hmm. an ulit tajaari bi ci boromi nattu yi hmm. ne an na safara naka tukki mir atul ajibi mooy seetu kimaani dama daan dégg ci ñi nga xam ne nit yi jaar jaar lañ xami xewute ñuy dox dafa bëri yu muy xee nit dafa bëri ci nit da anna safara naka tukki mir'atul mm-hmm. aajibi mooy seet waay kéemaan yi walan mm-hmm. asal dañu ma mm-hmm. di dagg kulla tanofatin bépp xàll waaq taximu may bëtt kulla maxoofatin bépp fu ñu ragal xattaj talaytu ba ma feeñal kulla utrofatin bépp kéemaan loolu xamam loo ma dox may dox fu ma jaar fa ci barab bu naqadee jaar ci barab yu raglu ba lu nit dajitee ci dox daal gis naa ko gis nga ko bu baax a baax téere ibnu basuta mooy tuufatu nusaar fi xaraa'ibil amsaar soo ko jëloon de ko yër Hmm. da nga xam ne dox dana nit ñi ci gisee lu bëree bëree mu ngi déparé woon fii ci Maghrib da dox di bind li muy gis gox yu bëri ci àddina dem na ci day daw léeg-léeg léeg mu toll ci diggante yu weesu yu doy waar léegi nag mu jox la fayda ne nangam ci la xettale ko woon man dama madalee ko fi mu dalee ci Maghrib te jàng naa ba fi mu jaaree Mali jaar Tumbuktu dugg Misra dem ba Irak fi muy duggee Najaf foofu laa jotoon a yem foofu laa jotoon a yem loolu dafa duggoon suma téere borom soxla ko ma delloo ko ko waaye mos naa ko téye di ko jàng léegi nag boo jaaree ci ñu ànd ji ànd jëful asraf na jëful sori foofu jeexal waax tangi mu te may bëtt kulla maxoofatin fépp ñu ragal mm. lépp lu ñu ragal mm. xattaj talaytu ba ma feeñal ñaari mujallal la li gannaaw bi ma laaj naa ko waaye gisuma ko wutoo mm. doon naa ko wut pour moo ko gisee mën ko mën mën ko andi waaye waaye waaye waaye gisuma ko jaaykat ñoo ko laaj amuñu xattaj talaytu ba ma feeñal kulla usrofatin bépp kéemaan fa min ahsani ma bokk na ci gën caa laala la maxtuhu gendee ko naa ko waax rabi ma ak gën caa laala istam laxtuhu xorom lu naa ko mooy rafet lu naa ko bokk na li ci gën rafet nag ci li gis ak li ci gën ci li may rafetlu an xadabtu saban teewal qaadi yaram la ci qaadi yaram la benn ma dem ci Ramla mm. ca mahkama ba mm. dem ci barabu qaadi mm. wa kaana te nekkoon na moom qaadi Ramla min arbaabi dawlati de bokk ci borom nguuri wa sawlati ak cong moom nag buur dëgg la woon kilifa dëgg la woon ku amoon man-man wa qad rafaa te moom kalaame ante na ci moom baalin góor gu fii baalin ci yére yu ràpp wadaata jamaalin ak wadaata jamaalin mm-hmm. ak ndaw tay boromi taar mm-hmm. fii asmaalin ci saga mm-hmm. ma fekk fa benn kalaame ante boo xam ne ñaar ñi kalaame ante kenn ki góor la gu màggat yére yu ràpp la sol ki jigéeni jongama la wante ay sagar la waqat tarafa ante biroom kalaame ante ilayhi jëm ci qaadi ramla ramla baalin góor gu màggat fii baalin ci yére yu ràpp wadaatu jamaalin ak ndaw say boromi taar borom taar ci asmaani ci saga faam ma hittewoo ab seexu góor gi bil kalaame ci wax wa tibyaanil maraam ak biral càkkuteef biñaal say góor gi mu bëgg a wax fa manaa du tere ko alfatatu ndaw si minal ifsahi ci wóoral lim bëgg wóoral wa xasa athu mu ko xasa al kalba mooy taradahu ani nu baaxi walis baw waaye ndaw si daal may xum koñ nag ba muy waxal rek la ko dogale xamatul na mooy def ba wax su mën a la topp mu ñoori moom ndaw si xanaa ci moom wisa nde si ti gañaay mu jël yëreem mm. dal da ko yëkkati mm. xam lu mu feeñal ci jëmmam mm. waan sadatu waan sadat wala waan sadatu waan sadatu mu saddale waaliji bi lisaani salitati ci lammiñu aji bari wax alwaqaa ku daa joo xar kanam li ñàkk kersa ba mu ko defee moom ndaw si mayul góor gi mu wax ci saa rek la yëkkati génne cël mayam mm. commencé de wax ak waali ci wëy mm. mu nekk lu xam ne waxi da ko wéyee ci waxinu ku pànk mm. waxinu ku naqadee la waan sadaba mu saddalee waali ji bi lisaani saliqati ci làmmiñu ku bari wax alwaqaa ku daajoo xar kanam da ñàkk kersa maa ngi yaa qaadi ya ramlati ya dallati fi yadihi tamratu wal jamra ilayka asku jawraban lilladi lam yahjijil bayta siwa marra walayka walama qada nuskahu wa qabba dahran idraban jamra kana ala ra'yi abi yusufin fi silati lhijjati bil umra hada ala anniya mustammali ilayhi lam aasi lahu amra umuru imma ulfatan hulwatan hmm. turdihu imma furqatan murra hmm. min qabli an axlaa sawbal haya hmm. fi taati cheikh abi murra ya qaadiya ramlati ay yow qaadi ramla yaa sallati ay yow mii nga xam ne fi yadihi nekk na ci loxoom at tamratu tàndarma wal jamratu ak xal man nga bégloo nit hmm. man nga fanaan hmm. loolu mooy wax bi hmm. ilayka jëm ci yow asko lay tawat jawra ban li jeng sama jëkkër sama jëkkër yi njubadi gim ne ak tooñ yi jàmbatalu ma ko kenn ku dul yow ilayka jëm ci yow asko lay tawat jawra ban li jeng sama jëkkër alladi jëkkër ji nga xam ne lam yahjuj hajul al bayta néeg bi siwa maratan siwa maratin lu may benn yoon góor la gu xam ne bañ ñu boolee ba léegi benn yoon lañ mos a am lan muy morom bu dili walay taxoo xellante woon moom sax lama xataa ba mu fajee nuskahoo jaamu waxafa te mu xoyof zahran ci gannaaw idrama ba mu sànnee aljamrata jamra xelate woon moom ba mu duggee ca hajj ga ba def taxallulul asxar kaana mu nekk ala rëyi abi yusufin ci ngirab abu yusuf taalibi abu hanifata bi fii silatil hijjati ci jokk haj bil umrati ci umra su ca tegoon umra mu def sunnatul umrati mu mooy léegi benn yoon la mos a séq ak moom mm. te da koo def ànd mm. moom ni mu war a ci ga mm. borom kër gi respecté wu loolu la bëgg a ah, abi yusufin amul abu yusuf amul keneen ci ay may li ñu xam mooy faridatul hajji ak sunnatul umrati bëri na lu ñuy ànd maanaam wéy moo tax mu tudd abu yusuf man naa am itam daf lay junjal mbiru abu yusuf mm. ci digganteem ak haruna rashid mm. ak borom jeeber ba ak ba mm. abu yusuf taalibe abu hanifata la nit la woon ku xereñ a xereñ a xereñ qaadi la woon itam bu ñu ci jamonoom ci jamonoy haruna rashid Haruna Rashid nit ku mënoon jaamu yàlla la. Mm. ndax léegoo léegaan benn bi dana julli lu ma téeméeri rakk. Mm. ku mënoon a joxe la itam. Mm. waaye nag nootit na xamut kum jeema. xamut num nooteewut nag. waaw loolu moom mënoon ko. mos naa aji aji màkk goo xam ne diggante Baxdaad ak màkk yëpp dafoo dox. yëpp dafoo dox. waaye nag bu xëyee ba lay dox nag li mu war a dox yëpp dañ ko lal ay malaan ci kaw malaan yi lay dox bi ba muy saxaaree. ñee tawadoo abdin la feneen hmm. soti maliki hmm. xata bu ni doo toroxlu njaami day hmm. nguuroo ngi ci <laughs> de dafa am benn bu mu jëfee ab jeebeer ne ko jeebeer bi dama ko ko mën a jaayee jënd ko wala nga may ma waa ji ne ko man giñoon naa ne du ma ko jaay hmm. giñoon naa ne du ko maye hmm. te yow dama tax a man hmm. mu ne ko yow baadu nga waroo xamee lu buur soog su ma jot dama laa rey ko de mu ne ko yaa xam de ay man daal giñoon naa ne du ma ko jaay giñoon naa ne du ma ko maye mu ne dajee dugal fu xaay dal di xoolu Abu Yusuf ci guddi guddi lañ ñëw na ko amirul muminin moo la soxla abo yosu ne mëttit lool ndax mbiru buur ak guddi hmm. mu wax ndaw yi ne leen ne ne leen na ma may ngir yàlla ba suba rek ma door a dikk hmm. te tuuti ñu ne mu ne munoo ñàkk a dem de mais hmm. ma génn pour man kay dootuma ñibbi la jàppoon mu ñëwee ak si ci saal bi ñu ne gi noonu na nga jàll fekk ko ci biir ma dem fekk mu ngi toog borom jeebeer bi mm. ñu ngi daal ay jaasi tëral mm. xëy na ki ñu waray loo ngi toog itam mm. donc su ma diggante kii laa nga lijjanti dama ko gisee al jeebeer na ko mu jaay ma ko wala mu may ma ko nee na nag duma ko jaay duma ko may su ko defut danga ko rey abu yoosu nag waa ji noonu la demee mu ne ko waaw mu ne ko ko may kenn wàll gi nga jaay ko kenn wàll su waaye mayoo ko jëral jaayoo ko jëral kon doo tëñu su fekkee tëñu rek ngay ragal kooku du ko jàpp mu ne kondosin may naa la genn wàll mu ne genn wàll gi laa bëgg nga ma abu yusuf ne ko lu la neex nga facture ko mu fay la ko mu jaayee ko lu seer a seer xam nga génn naag bénéfice am ne ko léegi jaayoo man maa ko moom ko yaa ko moom kay mu ne ko man nag bugguma mooy sariya te bugguma koo laal mu ne ko da nga koo goreel nga takk ko da nga koo goreel nga takk ko da nga koo goreel nga takk ko waaw kon baax na mën ngaa dellu sa kër mu ne ma dellu kër gi sin tuuti rek ñuy ma aw seg bu am doole ne buur bi la ko jox xëy na loolu lay jënj xëy na loolu lay jënj mm. gis nga ko bu baax a baax mm. waaye nag nax bu bëri nañu ko ci maanaam gars yi dañu ko ci daane léeg-léeg nax bu léeg-léeg a ngi daane ko ci bu mbir maa ngi hmm. lii lu bokk mu naa laa nii ànd ak man wax naa la lim ne hmm. wax la man li ma nee mu hmm. alaa nii ànd man nag mu sammani ma tappe ilayhi jëm ci moom man de wax keroog ba mu ma jëlee ma dugg ci njabootam ba léegi mm. la ansi musumaay mooy la way ñaal ko am rewoo ndigalam mm. musuma wuuteeg moom ci kàddu de mm. mos da wax waaw ma ne déedéet wala mu ne déedéet ma ne waaw léegi nag foofu musu digal ko de imma benn ulfatan takkoo xulwatan guraaji neex ko di ko gën a mu gërëm loo benn mu soppeeku ñi ànd àndin bi nga xam ne mm. ànd ak jëriñante lay do ànd ak wéttalante ànd ak dimbalante mm. wa imma benn furqatan muy tàggaloo muratan guraaji ga mm. wala ñu xaajoo subaa xalal dana yàqu ak bokk dana yàqu waaye gannaaw mën ñu ànd ñu xaajoo da nga la min xamle an ax la a may summi sabal yaay malaanam kersa fii taati seexi ci topp góor gi góor gu bon gi mm. abi murra saytaane mm. ndax bëgguma saytaane man mm. waaw te liñ ci la toll su ma ci fare woon ma war a fare mun maa dogo ne damay toog rek te wax dëgg nag dañ ko seetal fa qaala dal de wax lahu ñaal góor gi alqaadi bi ndaw te waxee góor gi wax qaadi ji góor gu màggi ne wax góor gu màggi ne ko ah xasamee ta nga de hmm. maa li nga xam ne xasat ka xaska nee na mu la ilay jëm ci moom hmm. lim la waxal de yaa ko déggal sa bopp hmm. waxtaan xasat ka lim la tëg alay ci moom lim wax ne moom la fa yaa ko déggal sa fajaanim na teet maa lu xam ne xarraka ñaawal namu la waxaadir ak nga wattandeku an tufraka bu bañee sat la wa tumraka ak bu rari la soy bu rari la soyow moytul dina ko baax a baax moytul lu lay ñaawal moytul ki la war a bëgg bañ la moytul jàmbur xam yoon ci sa njaboot la ko fajaanin na nga teet maa loo xam ne xar rek ñaawal na mu la loo xam ne sa ayib la moytu ko waxaadir te nga wattane an tuf rakka bu bañee fat la nga moytu ki la war a bëgg bañ la watuma rakka ak bu rafet loo fa yow nga moytu itam jàmbur di am yoon ci sa biir kër la xat fajasa dal di sukku a soyxu gi abu zayd góor gu màggat gi ala sobinaati yi ci bëti hoomu góor gi dal di gapp rek mm. bu gapp rek waaye yi nga xam ne mooy tegee ci suuf mm. ci tànk mooy ak sobinaat ba mu balal mm. yam boo ana yol ndew ay tëflitam wala ay kàddu mu tàmbali nag moom góor gi wa qaala mu waqaadi ji ne ko isma hataka dammu qawlam bi in yudihu fima rabaha hodra wallahi ma aradtu anha xilan hmm. wala hawa qalbi qada nadra hmm. wa innama dahru ada sarfahu fabtasahu hmm. durratu ah fabtasana durrata wa darra fa manzili qabrun kama jiiduha matlun min aljinaati wa zadra wa kuntu min qablu ara fi hawa fi lhawa wa diinihi ra'ya bani hodra wa munnaba dahru hajatu duma hijraan afin axidin hadra mm. wa miltu an hartiya la raxbatan mm. anhu walakin attaqi badra mm. fala tullu fala tullum man hadihi haaluhu waatim alayhi waxta min hadra mu ne ko ilma déggal yow waali ji hadaaka yàlla jéggi la asam mu ngañ déggal xawalam ri in waxi waay joo xam ne yoo di dafay leeral monsre mm-hmm. hoo ngantam mm-hmm. fii maa ci li nga xam ne rabaha si mm-hmm. ndaw si wax na li ko ci suñ nekk gi waaye dañuy wax ne réeroo xamul ñàkk waxtaan moo xam naa leeral li ko jaaxal rek nag ma déglu ni nga ko déglu isma déggal adaka yàlla jéggil adam mu ŋàññi looy dégg xawlam bi in wax yooy joo xam ne yoo di hu dana masroo ngantam fii maa ci li nga xam ne rabaha si kuloo mm. wallahi giñ ci yàlla may la giñal ne maa arabtu du mooy wu maanaa ci ngir bañ ko de du ñàkk soxla ci moom moo tax ma jox gannaaw de wala hawa qalbi déet bànneexu sama xol xadaa di faj nasrahoo nisiram duut bañ ko du doyal ci wa innama dahru jamono ha daa jàggatina sarfahoo soppatam sopta mu rekki ñu ñun ñëpp addurrata wurus wa darrata ak darra xam nga lu tuuti la waaye jamono mbiram moo dal suñu kaw lépp luñ xamoon da ci rafetale suñ mu jël ko ba bàyyiwul ñu dara gis nga bu baax a baax léegi nag bala nga naan naam mm. ah da nga fa ne mm. dafa am yoo xam ne du daleekaay mm. la ko war a jiitu mooy am buñ ca àggee mu door a mën a dal loolu rek la na ma dëhru jamono xandaa jàggati na wa darata ak dara commencé lii sama wàccuwaay hmm. xabroon aji wér la tey boo demoon sama dara doxoo rek hmm. kama jiiduwaa ni nga xamee loosa moom xon hmm. doon aji yu xël la minal jinaati minal jinaati ci per mooy wuruf wa sadrati ak wuruf ba tey takkaay jifeewoo ko benn takkaay moom rappate la boo demoon sama néeg doo fekk dara rappate la wa kuntu nekkoon naa min qablu ca njëkk nag ala fil hawa ci cofeel wa diinihi ak diinul hawa ra'ye bani hodra ta ngiram banu hodra bu banu hodra laa ni ci siddatul hawa wa kuntu nekkoon min qablu ca njëkk ala fil hawa ci cofeel wa diinihi ak diinul hawa ra'ye bani Hudra pengiram bani Hudra fa mus na ba waxtu wa becci ngare addaru jamono hajatu gàdday naa adduma netal bi mooy jongama ji may foye mooy tongu naa hijra na appin tongu aji fegu axidin ko daaji jàpp hadraho watande ko bi ndeme ba nga xam ne yoratuma dara nag laa ko jox jox gannaaw ku febu mm. ku xam lu muy ragal ci jaxaso te mm. mut na waxtu ba beccingalee mm. addahru jamono hajartu tongu naa adduma nitaal bi mooy jongo ma jëmay fooyat nitaal yi ijraana appin tongu aji febu aaxirin ku daa aji jàppu hadratu wattane wa miltu ma jeng an harsiya walis sama nisaa'ukum harsun lakum matar hmm. laa raxbatan du ngir sib hanu jëm du bañ ko sax hmm. walakin li fi nekk attaqi damay teet hmm. badlawo jiwu <coughs> damay ragal am fu ñu jaar doom bokki doom sofoo jaar lor gi gën a yar ndax doom ji buñ ko juree te mënuñ ko yore it tumaranke lay doon rek damay ragal tumaranke gi gën a yaatu rek mm. ma bëgg mu yem ci ñaar lu ma tama jox gën a mm. wala te lum bali yedd mm. man koo xam ne xaasi yi lii xaatu ko muy mbiram yërmande moom lañ war a jiital ci yedda ngi ku toll fu ñu ko yërëmee bala nga koy yedda da ngaa jëfandikoo yërmande ba mu génn fa ma ne moom war a jiital ci yedda gi mm-hmm. wala te lum bul yedda man ku xam ne haadihi li xaaluhoo mooy mbiram mm-hmm. waxtif na nga yëram alihi ci moom mm-hmm. waxtamil te na nga xeenu xaatreko bebentam xam na sax mën naa am la gën a doon teggiin sax mooy ñëw ci sa barab waxee waxinu dal waaye lor dafa bëri lu muy war lu muy waral ñu dem tuuti rek xam nga ndaw si am pànk la mm. am pànk la góor gi mu bëggoon a wax mu dogale ko ba man da wax mm. wax la mu bëgg a wax mm. xaadi na ko wax góor gi ne ma li ñu wax yaa ko déggal sa bopp góor gi lay ndax ndaw si dana noppem de xaala xaalis nee na fal tasa dal di tàkk nag almaratu jigéen ji mim maqaalihi ngir wax góor gi nag eh bi góor gi waxee dina ndaw si mel ni kuñ taxal nag wantadat mu bocci alhujaja layi mm. li jidaalihi ngir dagganteem mm. fase ne topp ko bam safasa mm. wa qalat mu wax moom daw si loo ñaal góor gi moo góor gi ne ko waylaka hoonaa saala ko boowoon yow yaa mataan yow koo dof ki yow xamoo lay wax yaa man yow mi nga xam ne huwa moom laa taxaamun déet ñam wala tean du càggeen dëbbante yow de yow kenn gënu laa tëlee jabar xel mu baax a baax hmm. atadiqu ndax da nga xat hmm. bil waladi ci doom hmm. sarxan ci xel wali kulli akulatin te ñaana lépp lu ñuy lekk marxan sax faa ragal doom war naa tax ngay jox soxna gannaaw te kenn ku ne buy ñëw dana fekk liñ ko xadul ci warta la xaddal la wallahi réer na fa mu kës a waxta te mooy ne sax mu ko safet mm. te jib jib bi jubu na mm. wasa bi a do dog na mm. dese na nafsu ka sabakan sabakan naana la de wasa xiya texe a dee na békk je xeetu ka sa jabar yow de jigéen joo denc mu am hay xam na hay yow de jigéen joo denc xam na hay la ko wala a tadiqu na da nga xatee bil wala di ci doom sanaan ci xel wali kulli akuuratin di ñaan lépp lu ñuy lekk maraan sàmm waaye lu ñuy lekk lu na am fu mm. mooy kenn ku nekk warsagam la bii fekk mm. laqa dalla wallahi réer na fa mu kasa dégg mm. waxtaa mooy na fa kasa fet wasafiya dese na nafsu kasa bakkan wasaqiya texaa deena bi ka jeexetu kasa jala waaw waaw su ko defee xaadi dara fa qaala fa qaala dal di wax laa ñaan ndaw si alqaadi xaadi mm. ji wax ndaw si ne ko amma andi daal yow yow daal yow mi ma gis nii mm. falaw jaadal ti boo daggi andee doon alxamsa xamsa mm. sans yére bu ràññeeku boobu su siqoo nag moom mu jaadala lan sanat kon mu wàññeeku han ki wadis la xamsa daa ji lu yow nag ni ma gisee. Hmm. nit nit kese kese. Hmm. man da wax ak yow. Hmm. yow nag ni ma nit kese kese man da wax ak yow xam sax bu waxoon yow dana taw. waa ma huwa daal góor ah fa in kaana bu nekkee sadaka di dëggal fii saamihi ci njortum. wa daan waa xant xant mihi ak woote ñàkkam. góor gi nag su ni mu wax ne ni la loro dëgg la ci moom mm-hmm. kon fa la woo na ko fii xam mi xab-xabihi ci hittey biitam mm-hmm. maa lu xam ne xaluwoo dana ko soxlaal mm-hmm. an sab sabihi walit kanamam baneewu kanam ñu jàng la kii li mu wax su fekkee dëgg la wax dëgg hittey dund mën na ko teetal yu bari rijaal bi mu ne man wuqiya sarra laqlaqihi wa qabqabihi wa sabsabihi faqad wuqiya sarra kulla waaw ñu ne nit buñ ko fegalee xayu laqlaq xayu qabqab xayu sabsab fegal nañ ko xayu ne laqlaq mooy làmmiñ qabqab mooy biir sabsab mooy kanam ñetti bi ne bu ñetti bi ne bu ñu muccee rek. ñetti bi ñu muccee rek. baax na ko bëri incha allah. waaye lu mën a tax neexu laa waxaat de. ni ma la gisee nii. ci sa borom kër it wax dëgg yàlla li mu wax bu dee dëgg. yi nga bëgg ni am na ci lum tabi. fa atraxat mu sanaagal moom ndaw si. ndaw si daal di sëgg tànsuru mbirum dana mu xool isbiraaran ci jeng bi mu sëggee sëggut gi pour sëgg léeg-léeg mu robu wala tarjama den muy delloo xiwaaran waxante bi ko xaddi ji waxee daal dafa sëgg léeg-léeg mu waaye waxu dara xataa xul naa bañ wax na xaraañaaha dikkal na ko alxabaru huruj alxabaru noppi dégg mooy tata kersa alxabaru tata kersa aw xaaxa walla wàcc na bi haa jam alxabaru tuubu nee na lu yàgg daal ba mel ni dafa ruus torop nee ni ko xaade ji waxee walla dafa kontaan ndax xam na gañe na jëkkëram daal hatta qul naa bañ wax ne xarañaa dikkal na ko alxabaru kersa mm. aw xaaqa walla wàcc bi haa cim asabaru tuubu mm. fa qaala dal wax lahaa ñaal ndaw si ak seexu góor gi ne ko mm. tansan xaala ko la ki ñaal dara yow duula dara jëkkër jim kalame wax lii di in saxra te naxaate aw katam te walla nga nëb maa li nga xam ne te xam nga yow doxoo dara tekke woo dara hmm. fii nii nga xam ne kenn ku nekk wax li la naqadi hmm. leral lii dëgg moo fi indi nit hmm. nga ñëw baal su fi waxoo lii de la ko jëkkër ji wax kiñ moo wax lii fa qaala ndaw si ne ko waye haka xoonaa sa yërmande aa yow itam de waxal baadal munaafarati ndax nekk na ci gannaaw kalaame ante kat mu nëbb man fi naa ma tudd ñoo nëbb wax naa li ma naqari yëpp di tontu na hmm. aw baqiya walla defatina lanaa ñaal ñu xam mun hmm. benn kasti ala sirrin dimbo dina suñ dara ne boo tuddi danaa hmm. biir nii ba sax wax ko dara bi sa tuddi aw baqiya walla defatina lanaa ñaal ñu xam mun benn kaste benn ten ala sirrin dimbo wa maa fii naa nekkul ci ñun illaa man dara koo xam ne sadaqa dëggal na waasaka te mu xotti saw na hoo kiidaayam hmm. mooy ñoo ngi alam is na saxa bi mu tuddee hmm. li nga wax yow dëgg la hmm. li wax man itam dëgg la falay tanaa xelante woon ñun laa xëy ñu dajeet albakamalu walam nal xate du ñu dajeet alxakama aji xatte waaye weeraangu gi am sama diggante yow daanaka ñàkkoon a mën a wax te doo dem ba doo ba doo kalaame ji dëcc wi mm. moo ko gën mm. na weeraange xam na mm. te soxla fajugu falaytanaa xelante woon ñun laa xëy naa ñu dajee albakamalu walam nalxate du ñu dajeet alxakamaaji xatte su mal tafaa topp mu muuroo rusayiha ci gañaayam wa tabakat muy jooy jooylu gis ku day yaa ngir mm. mu buur muuru mm. yooxu di jooy jooylu mm. waaye ne fa ndax li may wéyee ñëpp xam nañ ko ne borom këram ràppee ñëpp xam nañ ko te moo ko def wa jaala dal di al qaadi qaadi ji jebu di xéebu min xat bi ximaa ci seen bambare ci seen mbir wa ajjibu te muy ji xéemuloo nit xaalis yi mu mbir mi def ko kéemaan di xiimu lool de wax ne waa ji settantal lañ ko la de waye loomu muy yedd lëfumaa ngir ñoom ñaar addara jamono wayu ànnib te muy ko yedd hmm. mooy dëgg dëgg daal xaddina daal hmm. léeg-léeg mu defee noo xam ne hmm. danay waar bu ëpp su ma ahdara mu teewal minal wariqi ci xaalis alfayni ñaari junni mu génne ñaari junni dërëm jox leen wa mu wax mu ne leen xadd yaa gërëm loohee leen bii maa ci ñaari junni yi al ajwa fayni ñaari ajwa fi te mooy albatnu wal farid mooy leen kon tihee leen xaalis bile su ngeen demee ngeen dafa lekk man de ca dëgg de dundu mm. dundin mi nga xam ne mooy am bay na saw ji mm. waxaasiya te ngeen mooy mm-hmm. a naasixa aji yàq mm. bay na il fay ne ci diggante ñaari xarit te itam nit bu la yàlla boole moom da xam ne yéen ñaar la yàlla boole ku ca du dara bu mu ca dugg da ca yàq waaw moom borom kër gi hmm. da war xam ne soxna sii la xam hmm. moom soxna si hmm. da war xam ne borom kër gi la xam kon si laa si waay la nekk keneen duuja dara bu ja dugal keneen waa si yaa te ngeen mooy annaa si xaaji yàq benn il fay ne ci diggante ñaari xarit fasa karaahu ñu daal de ko ñoom ñaar ñu sant xaadi ji mooy góor gi ak ma ak ndaw si ala husni sawahi ci rafet ak wëtal mm. ci ni nga xam ne la leen xeewe xeewi hin wu rafet mm. ala husni sarahi ci rafet ak wëtal mooy ni mu leen xeewe xeewi hin wu rafet mm. wantalaqa ñi boyu waxuma te ñoom ñaar kalma yi ñu ngi mel ni ndox waraahi ak sàngara ñoo daxaw seen yoon dem nekkaat benn di jubóo nañu mel ni ndox la sàngara wata feqa di xara alqaadi qaadi ji hmm. yusni di tagg adabihima ci seen xam-xam bi hmm. wa te muy wax naan hal min aarifin ndax am na bihima ci ñoom ñaar hmm. banda masrayihima ci gannaaw seen ak wër seen ak dem ñoom ñaar watana yi sobayhima ak suri seen jëm bañ demee suri qaadi nag lal waxtaan te leen waxtaanee gannaaw daal ñoom ñaar ni ñu amee saqaafa hmm. ndax way wëyin ci wëy wiñ fi wax hmm. ni ñu ni mu rafetee hmm. bari laaj ndax xam na ku leen fi xamoon de watafiqa daal de xaral alqaadi qaadi ji baada masrayihima ci gannaaw seen ak dem watanayi sabayihima ak sori seen ak jëmm yus nii mooy xabar tafiqa yus di tagg ala adabihima ci seen xam-xam bi wa mu naan hal min aarifin ndax am naa ji xam bihi ma ci ñoom ñaar fa qaala dal di wax la woo ñaal waali qaadi ji aynu awaanihi sangam ay jarafam kilifa ñi koy jàppale wa xaalitatu xulsaanihi te daa ji selle xaritam ki nga xam daal mooy loxo ndeyjooram ne ko ama seexu góor gi day ba ji yu ko jug saroo këla almasuud kare ku ñu seede bi fadli yi ci ngëneelam mm. mu ne góor gi abu saydin soro ji la mm. ki nangu nañ ne adib dëgg la mm. wa amal marat daal jigéen ji fa xañere turax lii waru waay laxasam la bu dee ndaw la wa amma taxakumuhuma daa seen kalaamihante bi fii fa makidatun fexe min fi alihi ci jëfi abu zaydin wa hmm. bolatun te rek fiit hmm. min habaili qatlihi ci fiiti burujam hmm. mu ne kalaame hante bi nag panaa la boo xam ne góor gi moo ko la rek ndaw si rek wante benn muskila amul seen diggante en tant que kilifa ñaan ko nax nañ en tant que kilifa nax nañ en tant que kilifa te loolu baax a baax bu xam ne am masaakil ijtimaay la war a réglé hmm. nekk ci makamaa bi ñu ko soxla ñu naan ko nax nañu la hmm. <laughs> te loolu hmm. waaw kii la wax ne masaakil ijtimaay yu bëree bëri bëri moom la ñu wax ne moo ko war a réglé kooku war a xam nit ñi la nekk ci makamaa barabu service bi ñu naan ko nax nañ la <laughs> xam nga mënul xoyal waa ma taxakumuhuma hmm. ndaa seen kalaame hante bi hmm. kooku moom fa makidatun pexe min fi'lihi ci jëfam wa hmm. boolatun te deg fiit min abayil xadlihi ci fiiti huru jëm fa fada dal di merloo alxafisa mooy mer ba ko ne hifdu wattu hifdu xafisa mooy feeñalam xafisa ahfasa mooy feeñalam fa fada dal di merloo alqaadiya qaadi ji maa nga xam ne sama dégg na ko hmm. xaadija nag kàddu gi dugg ko trop hmm. ndax na xoyoku hmm. wata laxa boobu mu de takk ngir mer kay fa xudi a naka la furu jeeteeku ku xam ne yaa war a lijjanti tappale nit ñi yëpp war a lijjanti ñiñ tooñ yow ci sa bopp ñii la nax nax yi su ma xaala mu wax lil waa suy ñaar aji rambaay ji bii maa ci ñoom ñaar kii ko ne nax la hmm. koo la ko ne kum jógal faru duumaa nga sàkkul ma leen hmm. demal demal demal dawal ma leen hmm. sàkku leen su maxti duumaa topp nga jublu leen wasit duumaa te nga rëbb leen demal toppal ma leen fanaxa da buur kooka daal di buur yan podo mbirom dana mu fëgg mitra wayi ñaari peti njëkkee kaayam mu ngi daw di dóor ñaari peti njëkkee kaayam su ma aada topp mu delsi ha dafa dawee xel maanaam su ma aada topp mu delsi ha yadribu di dóor mu delsi ha di dóor if da rëyi dina ko baax a baax numéro bi numéro dina ko baax a dégg nga mm. yan fu du de bëgg mm. misra way ñaari peti njëkkee kaayam mm. su ma haada topp mu dellu si haat yadribu de dóor is daray ñi ñaari mbaggam is daray ñi ñaari mbaggam yooyu baax a baax dama ko woon si noonu lañ ko fee noonu la daw na xël daal di commencé bëgg di wax de bëgg loxo yi fa qaala daldi wax la alqaadi qaadi ji ne ko asir naa xamal ñu alama ci li nga xam ne nabasta yu li nga ko yow ndaw nga xool ki wax ko li nga wala tox be te bul na baax naa ci ñun maa li nga xam istaxbasta ñaaw la nga ko ak loo mën a gis lu mu diis diis rek te nanga ko wax ji ne ko maasiltu dañu ma astaqri da topp ak turuqa yoon yi hmm. waastab si wu te may hubbilu alxuluqa tëj tëji hmm. ilaan adraktuhuma ba ma jot leen hmm. musirey ni ñu daway dox ci àll bi waqat zamma te minoom nas nañ noskal nañ matiyatal bayni matiyal bayni war waay tàggaloo mu ne ko topp naa leen fu mu gis seen tànk rek jaar naa fa laajte naa leen ba jot leen génn nañ dëkk bi hmm. ñu ngay dem ca àll ba la leen jote hmm. maasiltu dañu ma astaqri de top ak turuqa yoone de gëstu fiñ jaar hmm. waa taftihu may hubbilu alxuluqa tëj tëji mooy barab yi nga xam ne mën nañ ma fa réeree ma góorgóorlu ba xam fiñ génne ilaa adraktuhuma ba ma jot leen musirey nañu daway dox ci àll bi ba ma jot leen ñoom ñaar ñu ngi ci àll bi waqad samma te mu nuskaal nañu mm. matériel bay ni war waaye tàggaloo mm. te boobu xam naa jógee ci dëkk bi pour mm. dem feneen ci lañ ne fa raxabtuhuma ma xemem looleen fil alali ci sungali fil alali ci sungali wa kafaltu te ma warlul lahuma ñaar leen ñoom ñaar dina amali ci am mébét may leen kilifa gi moo soxla xam naa lim leen soxla yi lu baax ci la hmm. moom ku baax la ñaare bu dimbalee nit itam hmm. day faral di ko bëgg a dolli hmm. kon yaakaar naa bu ngeen xëy jii affaire dana ca baax mën nañu ragal bu defoon lu baax la kilifa gi moo leen soxla woon dem leen soxla yi itam moom pour gën a jagal seen mbir la rek moom loolu la fi nekkee waaw te itam ñaare bu defee dara it yokk ko mu dëgër loolu lay bëgg kon daal bu ngeen demoon jege ji itam daal gën a baax lay dox loolu laa leen wax fa raxabtuhu ma maqamam looleen fil alali ci sungali ci naanam ñaareel wa kafaltu mu wax lahu ma ñaar leen ñoom ñaar beneen amali ci am dal di nandaleer xal ba seyxi xalu góor gi ayee asabu mu naagu xat góor gi mel ni daal hmm. moom daal moom daal wax bi dalu xerab dara dara dara bi dalu xerab hmm. bi dalu xerab dara hmm. wa qaala mu ne albiraaru dawee bi quraabin ci quraab turu fas la ak moo gën a du muus de hee dawa sësi sori loolu mooy léegu léegu la mu daal li ma gis daal mooy nañ dooloo li te doy te doy te te albiraaru daw mm. bi xuraabin ak xuraab turu fas la mm. ak yës moo gën a nekk muus mm. te mu ne nga am dal di wax hiya ndaw si ndaw si ne ko bal li fi dellu ahmadu mu ëpp cant wal farooqatu ku ragal yëg ma dafa yomb jàqare mu ko de ñu bëri gëm nañ ne buñ defee lu baax defaat ko dana la yokkal cant yow da yomb ragal rek fekk jigéen dafa doon ko xam ne bëgg-bëggam moo jiitu xelaatam mm. atifa mu ëpp doole fikraam mm. loolu mm. moo tax atifa mu ëpp doole fikraam loolu moo tax léegi bëgg ndol ko mu ëpp doole ci moom liggéey loo xelam loolu rek moo tax mu tànn lii <laughs> lu baax loolu ñu leen di topp falamma dafa pexe ndaw si. Hmm. boo gën a seetloo ne kii ndeke xamul dara daal. Hmm. seetlu bu baax a baax. Hmm. wa lu ci tegu wa xarala ci raay ak wërëndi njàmbaaram. xam ne bëgg-bëggam mën na koo dugal ci ay ay danse. bi loolu amee am sa ka jàpp na salaati la ay lafiti malaram da koo tëxee baax na xaaral na ma waxal. su ma saa topp mu xaral yëqool di wax laa mu ne ko. doona ki nushi hmm. faqta bi subula hmm. wax nay ani tabsili bil jumla hmm. tirimata naqati an naxlati wa talliqiha batatan badla wa hadirin hawda ilayha walaw sabalaha naturuha al ablahu fa xeyru ma lillisi an la yura bi buqatin fiha lahu omla mu ne ko doona ki jàppal hmm. nu fii sama lay bi xaaral nag ma waxal hmm. faxte fii na nga xëñ suba la ay yoonam li ma lay wax na ko takk hmm. te ko jëfe wax na te na nga doyloo bil jumlati ci mbambasan ani tafsir walis fasale xam na looy yëg nag kenn du ko fara fànce waaye bu ñu la fasinee da nga war wax na na nga doyloo bil jumlati ci mbambasan ani tafsir walis fasale tiiri naawal hmm. mata naqarti waxtu woo cobee hmm. xam nax la tin cig tàndar hmm. tàndarma gannaaw dal nga ca ba xam je meññan ma naawal sori koo sori wata liqii ha fase ko moom tàndarma googu nga jëlee meññan mi batta tan fasem batta bat la fasem raaji dagg ñu daal gannaaw wuti mu ko yóbbu woon te jëlee nañ fa dara sori sori waxaadir yi wattandekul alhamda dellu ilayha jëm ci garabu tànn mu ba fa delluwaat de walaw sabbalaha donte yoonal na ko naatuuruha naatuuram naatuur mooy kii garde garabu tàndarma pour bañ yàq wala kii garde weer ak tàndarma pour bañ yàq alam lahu do mu ne doonte la sax yombalal nañ la yoonu dellu fa ba hmm. fa dellu de hmm. wattukat ba la tax mu yombal yoonu dellu fa hmm. sax dellu fa moo ko yombalal jàpp la rek jëlee nañ fa lañ fay jëlee ñu ñoo xemem loo mel ni ki ñuy xemem loo xam na fa dara lu mu la noo de fa xëyu maa gën li nga xam ne li an la yoraa muy bu dee fi ko gisati bi bu xantin ci parce boo xam ne mm. fii aa nekk na ci xam la tun jëf la wa ñaar ko yow daal gannaaw yenn pexe yu doy waar yi ci ngay defee mm. foo tojee daal ba jëlee fa taxa mm. soo yeboo nga de sori foofu rek xamal ne ñu ngi la fa xiif lii wax lii la wax ndaw si moom góor gi su ma xaala topp mu wax lii ñaal ko e yow de waaye la xat man nii te sonn na def na fii maa ci li nga xam ne wul itam méngaleef na la ko ah yow day tey moom far mm. la teg métti na ci yow la mm. waaye far man nga wëññeeku rek min haa min haa su nga dikkee woon mm. sooy boo nga dëpp addeelu rek wa qul waxal li mursilika ñaar ki la yónni in siita boo sowee su la neexee wax ki la yónni su la neexee a wax ne ko ruway daka laa tunqib jamilaka bil asa فطوله وسمل المال والحمد منسدع ولا تتعدد من تسيد سائل كما هو في سوق اللسان بمبتدع وإن تك قطعتك مني خديعة فقبلك شيخ الأشعريين قد خدع ruwayda kandankul kaaf bi du kaaful xitaab mu ngi mel ni kaaf bi ñuy jokk ci saalika noonu rek mm. ak kaaf bi ñuy jokk ci jokk jokk ci haaka noonu rek mm. loolu rek la waaye du du kii du kaaful xitaab mm. ruwayda kandankul defal tànk laa toon xib bal soxal jëmee la ka sa jëf ju rafet bir asaay ci loxo nit ki ba ko defal ci daa nga ba mu gërëm la nga jàll bi ko di ko bugala di ba muy sonn watul yi da ngay mujj mm. wasamdul maali mbooloom xalal te mbooloom xalal mm. walxam di ak cant yëpp mun sa demoon aji tasaaroo la mm. dafa waral ñàkk sa xalal te doo am ngërëm watul yi da ngay mujj wasamdul maali te mbiram di ak cant yëpp mun sa dem aji aji aji aji aji sett wala tasaxaddab te bul min tasa yudi saydin ngir dolla ndeku aji laaj ki bëgg lum xam sala ya may wax dafa ñambaase ndeg bëgg yum xam yooyu jarul muy la mer loo mm. wala tataxat nag bul mer bul jëfandikoo mer mm. min ta sa yudi saayilin ngir doon la ndeku aji laaj rek yi muy ñambaas rek mm. li am li mu bëgg maa huwa déen moom bi mu tëddee mu daaji njëkk fii sawxi lisaani ci tëgg ak làmmiñ ndax itam nag ku taarixee ku taarixee xam démb nga xam ne yéen ndax yàgg na ndax nañ ku la ëpp ndax nañ ko toll ni yow ndax nañ ku la suufee ah ku taarixi xam démb xam ne ndax yàgg na hmm. amaa huwa déet bi mu tëddee muy ku njëkk hmm. fi tawxi lisaan ci tëgg ak làmmiñ hmm. waaye dëkk bu nekkee xasaat ki dara naqadi min nii ci man xadiatun huruj su fekkee huruj ki ma la huruj neexu la ko sayxul asaari yiina sayxul asaari yiin te mooy abu musa al asaari xab xudi ahuru jeexoon na hmm. ko xam la fekk njëkk xam hmm. nga ne tolluwaani abu musa al asari hmm. te naxoon nañ ko booba gëne goo àddina kon du yow la ñu njëkk na walim sa ko hamma sajara baynahum ma jàngi risaala dan ko jàng te dan ko baax man dañ ma koy jàngal ki ma ko doon jàngal dama ko jee jaar te mu wax ne na ci loolu la bokk jënd bu baax a baax su ko defee nag yooyu ñaar ba lim sax xamma sajara baynahum hmm. su fekkee da ngay jàngale waxtaanee dikk nii rek hmm. mën nga koy wax ni génne xam-xam hmm. waaye nag nga bàyyi xel xormay saaba yi bu baax a baax a baax a baax wattandeku daal wattandeku daal gorojal ci kenn kenn wattandeku itam ji fas fas ci kenn kenn waaw ndax itam yàlla xam na leen tollale nañ leen tollale nañ hmm. leen tollale dégg nga hmm. waaw dégg nga hmm. maarakatu sittiina deret ju tuur deret ju bëree bëri moo ci tuur ci deret jullit ñi waaw loolu mu baax a baax Abdoulaye ibn Omar borom xam-xam bu dëgg àddina bi ko lañ ko reyee moom wala ne tere bi moo ko doon lire Al-Bidaaya wa bindee ba ne ci lay rey Abdoulaye ibn Omar dafa ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun doro ko waaye nu mu ko doon jiite àgg na ko xam nga xare la woon ci diggante Ali ibn Abi Talib ak Muawiya ibn Abi Sufyan Sayyidina Muawiya ak Sayyidina Ali xare la woon bu amoon ci seen diggante ñi ànd ak Ali ñi ànd ak Muawiya bokkoon na ca ña ànd na Ali ibn Abi Talib ku ñu Abu Musa al-Ash'ari mu bokkoon ca ña ànd na Muawiya ibn Abi Sufyan ku ñu naan Amr ibn al-As léegi nag dañoo nekk ci xeex bi lool bari lool ñuy faatu ci jullit ñi dem dem ba ca kanam kuréelu Seydina Muawiya bi hmm. di yëkkate ay téere alquran di ko sañe di ko siñaale ñële hmm. Ali ibn Abi Talib ñi ma ànd ak ne ko ñële hmm. ñu ngi ñoo woo ci alquran te ñun ñoo nekk ci dëkk dañ leen ci war a xëy mu ne leen pexe rekk la kenn bu baax a baax waaye ñu de ko def ñu ne lii de wax lañuy wax dama hmm. ne lii fekk leen hmm. li may wax maanaam di la bëgg nga xam nu mu demee rek ngeen xam nu mu demee dama ne lii fekk hmm. mu leen di fekkee ñu dem ne leen yéen li ñuy wax ci alquran nangu na leen xëy te na alquran nag li mu wax su fekkee ñaari kuréel yi jullit dañuy xeex dañoo war a jëm jubale mm. su jubee mën a am baax na mm. su fekkee juboo xamul na ñu seet ki faral paye ñu regle wa in taifataani min al-mu'miniina qtataluu faslihuu baynahumaa fa in baghat ihdaahuma ala al-ukhraa mm. faqad léegi nag jubale ci la ñoo njëkk bu sottee fari layaram bu sottiwul ñu seet ki ko tagal jubale gi ni muy demee mooy ñaari kilifa yi nga xam ne tey ñuy jiite mbooloo mi du amee ci ñoom waaye ku ci kum wóolu kum kum doyloo mu jox ko kàddu ñoom ñaar ñooñale ñooy bokk suñ bokkee wax suñ ñëwee luñ wax jullit ñi dégg xam ne loolu la mm. mooy information hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha xam nga islam bi noonu lay demee mm. biñ ko bëggee moom Sayyiduna Muawiya mu wax ne tànn na Amru ibn al-As mm. pour muy hakamam Sayyiduna Ali wax ne tànn na Abdullah ibn Abbas ñu ne ko mun la xatte ndax sa doomi bàyyi la gaañu gaañu kuréel bële ñoo bañ hmm. fekk Ibn Abbas buñ ko tànnoon hmm. kenn du ko mën a nax hmm. ah ndax Ibn Abbas ni mu amee xam-xam noonu la doyee woon ku muus a muus kenn mënu ko woon a nax ah yu bëri moo dajee woon ci moom ah Abdullah Ibn yu bëri moo dajee woon ci moom nit ku muus a muus la woon kenn mënu ko woon dafa doon ku mat nit nga xam ne bu toogee daanaka jataayu ñaari nit lay jël mm. ne ku weex tall tall tall leen dañ boo koy xool doo ko mën a xool daanaka ndax taru weesu mm. ne ku xam a xam ayamul arabi mm. ne ku xam a xam tafsirul quran ne ku xam hadis itam ne ku xam fiqi itam yooyu yëpp dajee woon na ci moom yëpp dajee woon na ci moom te nag noonu la doone woon ku muus ku jogi wax ne kenn mënu ko na <laughs> kenn mënu ko na loolu moo taxoon Seydina Omar fonkoon ko torop fi mm. mu daan tawloo kilifaay sahaaba yi foofu la ko doon tawloo mm. waaye donte moom gune la woon jamono boobu ndax yonent bi muy génn àdduna fukki at ak ñett ci la toll waaw mm. ah, dégg nga waaye moo taxoon Seydina Omar fonk ko torop nag lool sax nag baayam daan na ko wax na ko gune gu la mag gune bu ko mag jegee de boppam mu ne ko Omar mii di kilifa dem mag dara jegeel na nga wattandiku sa diggante moom ñetti mbir hmm. mooy laa tufsi lahoo sirran waaw hmm. del wattandiku mbootam hmm. wala yu jarribanna alayka kadiban bul fexe mukk mu seetlu ne feneen nga wala taxtaabanna alayhi ahadan te itam barabam bu fi doore kenn waaw gune bu ko kilifa jegelee boppam da war di wattandiku yéen Abbas loolu la dénkoon Abdoulaye ibn Abbas dene Seydina Omar fam ko wax mini ma Abdoulaye ibn Abbas moom la mu mu ne kon tànn na Abu Musa al-Ash'ari ñu ne kon Abu Musa al-Ash'ari ci kuréelu Ali bi moom amamu naa ci kuréelu Muawiya bi ñoom ñaar ñoo war a dajee waxtaan ñu dem ba wér umurool afaarin wax sandu naa ñu waxal sa xalaat hmm. mu ne ko dee yaa njëkk a wane yaa dem mu ne ko niñ gis ni ñëpp mooy gis ni ñëpp xam ni hmm. parce que dara yaa ngi tuuru al yaa ngi yàqu yëg lafu kalima moom waa bu dee baat rek hmm. te nee nit ñi mënatuñoo ànd dëppoo benn baat hmm. ci jiital xaal yi hmm. mën na dañoo ànd dëppoo benn baat hmm. ci jiital xaal yi kon daal man li doon sama xayma mooy ñaar ñuy jéggale julli ñi seet koo xam ne ñoom ñëpp mën nañoo dëppoo ci topp ko ñu sant ko ni ci kaw loolu wax lu naa ne ko d'accord naa ci li nga wax tey moom mooy mooy solution bi mooy loolu mooy mooy xàll muskila bi léegi nañ dem ci li ñu wax leen liñ liñ fexe ba a demee ba taxaw mu ne ko waxal la nga wax hmm. Abu Musa al-Ash'ari jaar fa mu jaaroon hmm. am lu naa sa dégg ngeen ma xale yu gi nee na nañ ko diine kon maa wi moo ne ay yu gën a tàkkal loolu day waar la am lu naa fa mu jaar Abu Musa al-Ash'ari ba mu jaaree fa mu jaar ba pare hmm. te mu ànd naa de am lu naa da wane dégg ngeen ko Abu Musa al-Ash'ari nee na nañ dindi Ali kon maa wi moo fi ne lool def yëngatu bu doy waa ak ñaan a Seydina naa mujj mu comme waa Harura ak ñeneen ak ñeneen hmm. ah baamu yi nu mu demee hmm. moo tax mu ne ko dur yow lañ njëkk na hmm. <laughs> dur yow lañ njëkk na parce que moom ci gàttal noonu la waaye nag bu mu tax nga wax kenn dara nag ci ñoom waaw ah, bu mu tax nga wax kenn dara ci ñoom nag waaw ah, laaj ñu ko laaj ñu ko ñu ko def fa qaala daldi wax lahu alqaadi qaadi ji ne ko qaatalahu yal na halak ko allahu yal na ko yàlla halak hmm. te lu mu lu doy waar man ki ma ko doon jàngal muy Seex Alaaji Dam rahmatullahi alayhi hmm. nanguwul ma joon wax mu wax ne ma dem sax sama marché jox bay nam ci la bokk hmm. nanguwul ma joon wax dara ah te li ma xam mooy daje naa moom waaw kala <laughs> li ma li ma gëm mooy daje naa waaye nangu joon wax dara a qaala dal de wax la woo qaadi ji ne ko qaata la woo yal na alak ko allahu yàlla hmm. boobu mala kama hmm. lam lu màgg ahsana rafetal na su joona wax ay cëli waxtaanam hmm. ak bëri mënoore ji wax waam laa te mu xoromul fu noonu ay fànnam su ma inna hoo topp moom asaba àndaale na mooy jox na raida hoo aji gubam mooy ka ko doon wutalik waa ji jox ko bur day ne ñaari mbubu wasurratan hmm. ak mooy mooy këmbukaay men hmm. xay nañ ci kaye hmm. mu jox ndaw le ñaari mbubu joxaat ko benn mbuus ak xaalis wa qaala mu wax lahu mu ne ko sir doxal sayra man doxal koo xam ne al iltifaata geesoo ilaa tara ba nga gis asayxa gi war fatata ak ndaw sa jam doxal dox boo way nag ba nga gis bul la nga tooyalee yadayhima seen ñaari loxo bi haadal bi haadal hibaa ci gi la mm. nga jox leen lii mm. wa bayyin te nga biral la huma ñaar leen ñoom ñaar mm. in xidaaya sama nangoo naxoo bil udaba yi ci udaba yi nga ne ko man nga ne leen man bañu ma ñu nax ma ci xam-xam innal karima isa xadaatahun xadaa ah ku kenn kenn kenn man da naxee lenn xamal ne du waaye nit pire rek dana am lu mu jëmmal mm. loo xam ne donte bañ ko jaay nax rek mm. daa nang ko jata mm. ah innal karima isa xadaatahun xadaa ah ku kenn mën da naxee ci lenn lenn lenn muy la dikkee lenn lenn ba nax la qaala raawi haris nee na e falam ara gisuma fil ixtiraabi ci tumaranke ka haadal ajaab ki man lu mel nii wala tamit dégguma bis li ci kemam mi man ñi nga xam ne jaala wa ndeelu nañ wa jaabate ñu dagg ci